leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook leen fa yéenekaay suñu Sénégal gi nga xamante ni jamono ji laa la wax mi ngi ci pant boo xamante ni bu du moytul musiba mbaa ko ba dina am ci biir réew mi yéenekaay bi ne seddu gi am ci Sénégal rek yéenekaay bi ne li xew ci diwaanu Kaolack lenn kese la ci li nuyoo ci biir réew mi loo xam ne dinañ ci mës dem ba kenn ku ci nekk laa la wax saa yu ñu la tooñee nga fayul sa bopp xoolal ma jëf ju ñaw ji nga xamante ni def nañ ko ci armeeru Kaolack ya lenn dong ngay jàngat ci jëf yi di am ci Sénégal de mooy ñàkk confiance nga xamante nii Sénégal yi commencé nañ ko am ci justice bés bi dem ba léegi di fayal seen bopp seen i li xew ca diwaanu Kaolack am na beneen boo xamante ni fan yële passé rek ñu ngi koy tudd di benn vigile bu ñu rey ca diwaanu Ngor ndax dañ ko soupçonné woon dong am na tamit beneen waay bu ñu rey bu wuyoo ci turu Njaga Njaay moom it dañoo ñëw fekk ko ci benn terrain de football ñu rey ko laa la wax ba pendre ko ca diwaanu université Cheikh Anta Diop de Dakar tamit la même chose fan yële ñu génn am na ci benn waay bopp seen i mer xamuñu ne dëkk bi ne dëkk yoon la même bu ñu la tooñee sax dangaa war a dem ci yoon libération yéen kaay na coowal Kaolack gi de ba léegi si jeexagul ndax booy xool boo xool sax am na révélation bu rëy bu ci am mbooloo mi nga xamante ni ñoom ñoo demoon sulli ji néew bi jiri ko ba ci biti nag daat koy mujjee taal na ñeent ci ñoom ñoo xamante ni jàpp nañ leen jamono ji gannaaw ba ñu càmbaree yenn ci ay vidéo yoo xam ne moo gën a fës nag ci mbir yi xàmmee nañ ci ñeent Kaolack quoi jamono ji may wax ak yéen jàpp nañ leen bu yóbbu ba enquête bi di continuer a continuer Niassène moom di def communiqué leeral na Léona Niassène taqeewul laalewul laala wax ci mbir yi moom xalif bi di xam ci biir yéenekaay bi nag ñu nekk nag dëkku bu Amnesty International de moom dina def liggéeyam ni ki tey jii gannaaw requête yi nga xamante ni avocat Ousmane Sonko yi dugaloon nañ ko ñeel salfaañe salfaañe gi ñuy salfaañe àq ak yelleefu Ousmane Sonko yi yéenekaay bi mu ñu xamal ni ki tey jile état Sénégal war a avocat Ousmane Sonko yi ca cour de justice bu CEDEAO waaye état Sénégal dafa laal glace de daw deuxième di sàkku nañu reporter audience bi ndax bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi agent judiciaire de l'état li mu def ci badaaxal bi jébbal ko nag cour de justice bu CEDEAO pour mu reporter audience bi nee na yooyu ci suuf nee na état bu Sénégal gi dañoo pareegul pour ñëw waaye audience bi dina am tey ci nii wala ci naa xuwaan yemul ci loolu ndaxte mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne mbir yi daal ak loo ci mënti dégg cour de justice bu CEDEAO bii bokkut ak bu Sénégal bii amul manipulation amul jaay doole atte moom dinañ ko def ci nii wala ci naa sud du quotidien des ci audience bi nga xamante ni ñoo ngi koy xaar ci diggante état bu Sénégal ak avocat Ousmane Sonko yi ca e e bi bi dellusiwaat na ki tañuy xamal ni ñetti requête nag la avocat Ousmane yi dugal ca biir fukk benn yoo xam xamante ni dañ ko salfaañe laa la wax àq yelleefu Ousmane Sonko yi moom la avocat Ousmane Sonko yi bëgg xam fan lañ ko teg waaye fi mu ni état bu Sénégal parewul laa la wax pour plaider agent judiciaire de l'état demandé nañu reporter audience bi yéenekaay bi dem sax ba xamal ne gis nga audience bi mën na bañ am nag impact ci dossier Ousmane Sonko yi ndax CEDEAO mësul jël décision ñu respecté ko fii ci Sénégal ci nguuru Macky Sall gi tànn parti pur li tax Serigne Moustapha Sy tànn ko peeg ñu bari yéenekaay bi ne en tout cas bu dee xam-xam incarné na ko bu dee jikko incarné na ko bu dee relation am na ko compétence yi tax ñu daal di tànn njiitum réew lépp a ngi ci moom moom Aliou Mamadou Dia dellusiwaat ci relation bi nga xam ne am na ko ak Cheikh Tidiane Youm bu parti pur xalaatam ci enjeu yi nekk ci biir réew mi rawatina jafe-jafe askan bi solution yamu ci am lépp nag yéenekaay bi dellusiwaat na ci ba ci élection présidentielle yi di ñëw ñenn ñiy xalaat ne dañ ko war a reporter moom Aliou Mamadou Dia tey d'accord ci ëllëg mu gëm ba gëm moo di élection présidentielle yi ak enjeu yi mu àndal nag dem ci dong moo ci war te moom Aliou Mamadou Dia pare na pour gagner élection yi en présidentielle yi di ñëw di sàkku ñu pousse ko ndaxte jamono ji réew mi dafa ànd ak ay enjeu politique tension yoo xamante ni génn gu te mënuñ cee organiser élection yénn ci ay boroom xam-xam ak société civile bii nag d'accorduñu ci Les Échos yéene kaay ne Abdou Karim Fofana tamit bu électorale bi moom Abdou Karim di xamle ci biir yéenekaay bi ne élection présidentielle dina am le février bii ñu jëm donte nag Boubacar Camara moom mu ngi insister di persister te dëggal nag élection yii lu ñu war a la ndax tension yi ñu nekk Vox Populi moom dellusiwaat ci jàkkaarloo gi nar a am niki tey jii na ci diggante état bu Sénégal ak avocat Ousmane Sonko yi ca cour de justice bu CEDEAO lépp ñeel radiation Ousmane Sonko bii tas gi ñu tas tamit Pastef renvoyé nag audience bi yóbbu ko ba le 8 bi ñu jëm donte avocat Ousmane Sonko yi ku ci mel ne Juan Branco lànk na ba xalangu ci suuf ne lii nag duñu ko seetaan tey audience bi dina am ci mardi bi problème électricité dafay am tey maanaam courant dafay coupé te internet bi tamit dafay am jafe-jafe Juan Branco moom di xam ne ci biir yéenekaay bi ne mbir tàppale kase nag laa fi dégg waaye audience bi dina am lu jëm ci dossier bi nga xamante la ñu Branco nag mi ngi xam ne ci biir yéenekaay bi na ñoom duñu ci dara bu dee bulletin de santé bu Ousmane Sonko bii moom la ñuy wër kan moo ko génne ci internet bi du kenn ku dul man Juan Branco kon nag bu ñu ciy jàpp keneen tamit dañ koy tooñ man avocat Ousmane sonk bii di Juan Branco maa tasaare bulletin médical Ousmane Sonko bi donte nag Amadou Ba fi mu toll nii defeere nan ko Fatima Kan moom tamit arrêté nañ ko yéenekaay bi jeexalee coow la nekk ci duwaanu Kaolack néew ba koy mujjee taal ci digg mbedd ma xalif bu lew naña seen génn na nag daal di ñaawlu li ni mel tey na lew naña seen jegeewul te teeweewul tamit jëf ji ñaawlu nañ ko ba fu ñaawlu yem xalif bi tamit leeral na ne gis nga armeel yooyu teguñ ko ci loxo lew na ña seen de donte ca biir quartier ba la nekk waaye du ñun ñooy jox ndigal kan lañ fay suul ak kuñ fedul suul mësul nekk suñuy loxo en tout cas fi mu toll nii moom justice mu ngi lijjanti vidéo yi ba jamono ji jàpp gum nañ ci quatre bu Jamra moom tamit ñaawlu ji nga xamante ne am na ci doonu Kaolack ne amul fenn fuñ ko teg nag ci diine l'islam waaye ak luñ ci mënti wax tam ñu ngi fàtte ne état am na ci part de responsabilité luy njig di njaag ñoom ñooy njaag kon nag bu yeboo rek ñu xamee ko noonu <laughs> moo kii leen di abonné ka bàyyi xel seen seen YouTube bii di Mourchid TV te gën a bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar ñu yendoog jàmm ba subaak jàmm incha allah